الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi tal sunu borom ñu ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne moom sunu borom mooy ki ko jagoo ñu ngi julli di salmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi di ñaan sunu borom mu dëkkee doot ci wàllum xéwal ci kaw yonente boobu ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu ci waat nañ ci saawa yaa bu jub googu nga xam ne xàlloon nan ko muy woo jaami yàlla yi ci fas bu set nga xam ne loola rek mooy tax a mucc nit ci ëllëg àllaaxira bu dajeeg sunu borom te waxoon nañ ko wala nazaalu nuqarribuha mooy ni fas bu set day mooy gaalab yent yàlla nuux képp ku ca jaar wala mu yéeg ca dana mucc waaye képp koo xam ni jaaru ca yéegu ca ko fa dafay sànku dafay xalku woote boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fukki at ak ñett def na ko sa ak ni mu mënee jàngale ak ni lan ma ñam wa leeree ak ni ko suñu borom di jubbantee di ko wan fa jaar nga xam ne lépp lu ñuy wax li ñuy wax waxyu la in huwa illa waxyu yuuxa nga xam ne ku ñu wax moo la gën a jub ay wax gën a baax yëpp ay wax gën a mën a jàngale gën a mën a leeral borom di def baraka ci aw làmmañam masala moo xam ne def na ci fukki at ak ñett di ko jàngal ndongo yoo xam ne adduna bi yëpp bu yent yàlla yi jàllee ñoo gën a neexum xel muy saxaaba ya sikk nekkul ci ni ñun day kon waruñoo wax lu dut ni kon lii biir dund lañ ci war am ngir di ko leeral ni ñaareel mooy lu yonent bi jël fukki at ñett di ko jàngale ku di boromum xel ak koo mën a doon soo ko déggee di xam ne mbir mii lu am solo wala sax dégg na am solo boobu ngir moo xam ne ndongo yan ko doon jàngal ñoo gën a ñor ci addina bi ñu def fukki ko jàngal te doyut la muy wane mooy beneen ndongo bu dut ñoom war naa xam ni buñ la ko jàngaloon diine dund it xanaa da xam ni mën a dund nga yam fa waaye tax mbir mi doy yeneen bi ci des mooy borom bi soo tala mu ne yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim bisa ngi ñëw boo xam ne alal du jariñ koofa doom du fa jariñ askan du fa jariñ leneen saxut di wax waaye lay jëriñ nit ki moom mooy mu indil yàlla xol bu set boo xam ni la yàlla fas la woon yonente bi yonente bi fas loo ko saxaaba ya saxaaba ya jàngal ñu ko ñu ne seen ginnaaw loola rek fas ko mooy tax nit ci mucc yàlla borom bi dimbali ñu ci mën a fas loola bala ñuy dajeeg moom beneen bi ci des mooy ci waxtu yu ñu toll njaxas mi dafa bari lool nit ñi nag alhamdulillah bu def daawakat nga bu mën a seetlu di nga xam ni nit ñi bonuñu dañoo amul ku leen jindi li nga xam ne nit ñi bañu ñoo jaar ci wi dañ koo xamut waaye li nga xam ne nit ñi kat ñi leen war a leeral la ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo desee leeral ndax kat am na ñoo xam ne dañooy taxaw taxawaayu ku gëlëm ndax mbooloo yi woote jëme ci lislaam daa bari lool te bu ñu waxantee te yàlla rek tax nag mbooloo mu ca nekk nag ah maslaa buy jur nañ ko maatale ci kaw rek nga fi nekk waaye kenn ku ca nekk yaa ngay critique sa morom min xaytu tadruun aw laa tadruun mbooloo yi fi woote woon islam yépp nag laa wax ak këri diine yépp koo ci yaakaar ni reconnaître na Muhammad da ngaa kooku waaye amut kenn ku ci nekk ca mbooloo yañ woote boppam rek lu reconnaître loolu bu ngeen ko yëgee mooy li am bu ngeen ko yëgul du leen ngeen def ci gëstu di ngeen ci xam dara mbooloo moo ci gis lam jàpp mooy kañ topp rek kay waaja ku ko toppal alku nga te weneen yoon waay jaar baaxut buñ ko waxee ak buñ ko waxut la keneen jaxasoo boobu ak jaaxle googu waral na ñenn ñii tuub kat di dugg ci lislaam suñ tuuboon tey fan la ñuy adhéré wu daf leen di jaaxal mbir mi du mbirum mbooloo mu ñuy topp waaye mbir mi du mbirum nit ku ñuy teg ca kanam mbir mi du mbirum ñoom di jàpp mi mooy ñu delloowaat nit ñi ca jàngale yonente bi fa in ila allahi ila rasul mbir bu jaxasoo amee kat nag suñu borom mu ni bàyyi leen yëpp ngeen delloo mbir mi ci yàlla akub yonenteem in kuntum tuminuna billahi wal yawmil axir bu dee gëm ngeen yàlla gëm yonante bi bu wuute amee jaxasoo am jaaxle am suñu borom mu ni dellu leen ci yàlla akub yonanteem su dee gëm nañ yàlla gëm yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon delluwaat ca loola moo waral xam dëgg dëgg dëgg lan muy sunna ak la yonent bi jàngale woon ba muy dund te ba muy faatu joxe ngeen dénkaane loola jaadu na kët nag ñi nga xam ne ñooy leeral njubag suñu borom bi ñu leeral ko nit ñi su ko defee su boobaa nag li yàlla li ko mën a am bay yi la ma man xel am bay la mbir moom bu xasee ba leer ku yàlla na ma jinde nga jindee ko te da ngay fekk leer na lool ku na ma tànk nag jamono ba ngay tànk daa leer ba noppi nga doog a tànku ndax wa man yuridu llahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi min shay ku yàlla nam ma fitnaaloo kooku mënul ci dara boo ko waar bii ba léegi du sukkeeku waaye ku yàlla nam ma jindi yashrah sadrahu lil islam man yurid allahu an yahdiya ku sunu borom nam ma jindi dafay ubbi dënnam def ci njub root teg leer ba saa boo déggee dëgg ki koy wax amul solo ci sa kanam ndax kooku ko ñàkk solo la comme yow waaye li am solo mooy li ñuy wax ndax waxi boppam la wala lu muy nekk leen yàllaa ko yonenteem la waxi boppam la ba boog moom ndax am nga sa waxi bopp yéen waaye su fekkee la yàlla la ak yeneenteem su boobaa jël côté nga xam ni gënul la caa gënul la caa lañ waaye daf la caa jiitu ko kon mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam la mu nekkoon de loola moo tudd sunna sunna ci làkkub wolof wala ci làkkub arab dañuy wax sanna yasinnu wala yasunnu sannan maanaam baat bi ci làkku arab nga xamante ni ñi nga xam ne gëstuñu diine sax luxal arab yi rek la ñuy gëstu xam nañ ni sànn ci jëmmi boppam day tekki aw doxalin wala aw yoon ci istilaax waaye ci wàllu luga dafay tekki sax maanaam yeesal wala daar danaa ci téere luga yi di ngeen gis ñu wax benn bu yore paaka ñu ne daa sànn na ci ciinam na paaka ba mu ñëw kon kat seddalewaat na lan nekk la ak lu bon la ndax ci làkk bi sunna dana tekki ab tariqa aw doxalin doxalin wa nag mazmumatan am mahmuda doxalin wu bon day tekki sunna doxalin wu baax day tekki sunna waaye ci kaw bu dee làkk bi rek la ñuy waxal bu dee làkk bi ndax làkk bi làkk la comme français comme anglais comme leneen ndax yonent bi alayhi salatu wasalam bokk na ca lam doon wax mooy la tattabi'unna sanana man kaana qablakum shibran bi shibrin wa diraan bi diraan di ngeen topp sunna yi leen ci jiitu woon te la àndal loolu baaxul ndax ñu ko lépp lu baax dañu ko tere kon sanna ak tariqa di ngeen topp sunna yi leen jiitu woon mooy yahud yeeg nasaraan yi seen yoon yu yàq ko di ngeen ko topp jéego par jéego sebre par sebre ba buñ duggoon ci ko xam lépp di ngeen dugg ànd ak moom ñoom loolu mooy tey nit ñi dañoo bàyyi seen diine ci gannaaw waaye di roy occidentaux yi di roy tubaab yi di roy ña nga xamante ni ñoom duñu ay royukaay te loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi ko wax te mu nekk xadis boo xamante ni xadis la bu wér yoon wa nga xamante ni moom mooy mooy wan jaaroon rek yonente bi alayhi salaam mu ni man sànna bil islaami sunnatan xasana bu fent ci lislaam aw yoon wu bees kon foofu ngay déggee firim xadis boobu léeg nga dégg ci média yi ñenn ñuy waxal diine di wax ni kon kat bidaa am na bidaa bu rafet luy seen tegtal mooy man sànn fil islam ku sof seet dañoo xamul ni sànn ci làkku arab dafay tekki yeetal maanaam aw aw yoon seereet aw yoon ko daal di koy jaar paaka bi kat li ñu koy daas kenn amul wérante ñu ne paaka nga fa woon lu ñuy tuddee rek dañuy daggee ma nga fa lu ñuy tuddee ñaw ka ma nga fa kon ci daas dafa ñëw seddaliwaat ngir geetaay ba wala daggaay ba mën a gën a baax kon ku sob man tànn na ku sob waaye sob bi seetlu li mu wax moo tax gis nga léegi nit dafay wax ba noppi fekk moom ci inni na moom ci yëgu ko man tànn na dañuy fil islam ci biir l'islam bi lay doon kon lii bi dafa am lu ñuy tuddee wërngal ak l'islam kii sob bu dikkee la muy sob moom la nekk ci biir man tal na ku ko mu ni fil islam ci biir islam ci kon mbir mi dafay nekkoon nit ñi faas ko sang ko sang ko ras ko suul ko ñu fàtte ko yow nga ñëw kat yeesalaat ko defaraat ko ba nit ñi di ko jëfee comme na Omar ibn Khattab ñëwoon fekk ci jàkka ji nit ñi julli kii fële kële fële mu daal ni Ubay ibn Kaab yow ko mokkal nga demal nga jiite ci kanam nit ñi toog sa gannaaw ñu jiite leen faraaweex Omar di romb guddi gi rek seen leen mbooloo mi sàkk da rafet lool muy ni'matu bidaatu haadihi ah waaye bidaa bii kat moom bidaa bu baax la fekk déedéet loolu du bidaa parce que yonent bi alayhi salaatu salaam tegal na ñeenti fan ba ñetti fan yoo xam ne guddi gu jot dafay jub xiyaam saxaaba yi topp ci ginnaaw te juróomeel ba wala te ñeenteel ba ci ay riwaaya yonent bi génnul ba saxaaba yi di jël ay xeer di ko xànni ci buntu néegam mu ni dégg naa leen waaye li ma teree génn mooy ci jamonoy wax yu lañ nekk damay bañ suñu borom daal di koy farataal ci seen kaw kon sunna la waaye yonent bi comme ci jamonoy farataal la ko lool moo tax mu bàyyi woon ko Omar dikk daal di koy yeesalaat kon Omar tësut dara waaye dafa beesalaat la nga xam ne nëbb woon loolu kon nit ñi faaw ñu xam ko su ko defee kon sunna si boppam yonent bi alayhi salaam mu ko sos sunna sunna loo xam ne sunna la woon nit ñi jëfewuñ ko yow nga fësal ko leeral ko yonente bi alayhi salaam mu ni képp ku la ca roy ba yowmal qiyaama da nga cay am pourcentage sa wàll waaye ku créé lu bon tamit nag lu bees nit ñi daal la cay topp nit ki noonu tamit safaan ba nit ñi la cay roy da nga cay am pourcentage ba keroog àllaaxira loolu imam muslim génn na ko ci saxiix am na nag sunna nag dëgg-dëgg lañu tax a jug dinaa ko arab wax waaye lañu tax a jug mooy lan lañ ci namm ci biir l'islam hiya alhadi alladi kaana alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabu mooy la yonente bi ashaaba mooy la yonente bi nekkoon ak ay saxaaba moo xam ca wàllu xam-xam ci wàllu lu ñuy fas te lañ doon jëfe te la nit doon fas mbaa mu koy wax mbaa mu koy jëfe yonent bi gis ko ba noppi noppi kat di wane ne lii lu baax la ndax xam ngeen ci xutba yii passé waxoon nañ leen sunna am na ñetti xeet ak sunnatul qawliya wa sunnatul fi'liya wa sunnatul taqririya sunna boo xam ne yonent bi da koo wax saxaaba ya topp te di wax wala mu jëfe ko saxaaba ya topp te di jëfe wala benn waaye ko wax wala mu jëfe ko yonent bi gis ni lii lu baax la yonent bi rafetal mooy ak sunnatu taqririya comme que siggi wa jaru ko eh, wax zikr bu am solo bu rabbana wa laka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda yonent bi saa sallam ni kan moo wax waa kan moo wax wax ji waa ji ni naa fanweeri malaaka ak lu topp di xëccoo baat boobu kan moo ko yéegal ci suñu borom kon loola ci sunnatu taqririya lay bokk moo xam xawliyan wala fi'liyan sunna bi nag ko wax ci ay aqaid yeeg ibaadaat yi comme bu ñu nee sunan naafila sunna weeru koor comme weeru koor yu jàll na fi nga xam ngeen war nañoo woor juróom-benni fan yi nga xam mooy weeru sawaal nga xam ne yëpp ku ko woor mel ne at yëpp nga woor ndax suñu borom benn bu nekk da koy fay fukk Euh, sunna dinañ ko wax te fekk lañ ca nam mooy ay jaamu yàlla yoo xam ne yonent bi moo ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam waaye lay safaan bi sunna nag nga xam ne mooy contraire ba ndax safaan ya ca la mbiree di leeree moom mooy bidaa nga xam ne loolu yonent bi jàngale wu ko alayhi salatu wasalaam yonent bi nee na saxaaba yi ci xadis boo xam ne ay baado bi ni saariye moo ko soloote loolu mi ngi ci sunan abi daawud benn dafa yar dafa waar saxaaba yi waar koy tàggatoo ba ay baado bi ni saariye nee na suñu xol yi tooy lool suñu bët yi tàmbali génn ay rangooñ yonent bi salaa sallam Irbaas nee na ñu ne ko waaw yow da ngaa mel ni sa fàttali bii day sa waaraate bii da ngay tàggatoo pour dem àllaaxira waaw tey nga ñëw dénk am ndénkaane boo xam dinañ ko tàmm sa gannaaw yonent bi ne maa ngi leen di dénkee lépp na tuuti bu ma fi jugee sama gannaaw ay wuute dana bari lool ñii jàpp ci waa kër ñoom diw ñii jàpp ci waa kër ñoom diw ñii jàpp ne fii mooy dëgg kenn ku ci nekk gëm ni li nga ci sa morom nekk baaxut da ngay perte comme ni ñu koy dundee fa sa yara xilaafan katira wuute yu bëri di ngeen ko gis waaye su wuute amee li ma leen di dénk diglu baax yow lay waxal ak ñoom fa alaykum maa ngi leen di dénk bi sunnati ci sama sunna man yonente bi wa sunnati alxulafaai rachidin ak sunna yi sama saxaaba yu baax yi aboubakirin wa omar wa osman wa ali beneen riwaaya mu ne tamattaku biha mooy leen ci bu dëgër xam ngeen ni ci tàbbi ci teen ah ñu koy lugal di ko génne jox ko bum ni ko mooy ci kooku kenn waxu ko téye ci wala jàppal mooy ci mooy téye bu dëgër nga xam ne lépp du sax mu dagg tamassaku biha mooy leen ci wa abdu alayha bin nawajid mooy bu ca yam sax waaye ngank ci say jëge ndax biñu biñu kanam ku ne xam ne ni fàq daa yomb waaye boo jëlee li nga bëgg a mat ko ba ci bañ yi ca biir bañ yi ca moo gën a dëgër moo gën a xóot moo gën a gàtt xoolal fala ko yent bi dugal loo ngir lépp loo xam ne mën naa andi ci ay ngelaw yuy fàq fàq fàq rek yow du fàq dafa fekk dugal nga ko ko wóor yonent bi alayhi mu ne topp leen loola wala ci ngeen topp leneen lu yees loo xamante ni ci sama gannaaw la ñëw amma al jamaa ginnaaw bu ñu xamee ne kon lii mooy sunna mooy la yonent bi nekkoon ak saxaabaam léegi dëgg dëgg ñuy wax ahlu sunnati wal jamaa jamaa ba muñ ko waxee ci laftu arab maxuudu min al jamaa wa huwa dammu shay ila shay jamaa jamaa mooy mbooloo tey jii ñun ñi dañu ci jàpp ji mbooloo la ndax kenn la dugg ci bunt bi kenn duggee fële keneen duggee fële daal di nekk nañ jamaa muy mbooloo loolu lay nekk ci Alxuraan nga xam ne kenn jóge fële keneen jóge fa jërëjëf ko ngir daal di nekk mbooloo. am naa mbooloo nag suñ ko waxee ci làkk arab ah, mbooloo mu daje rek la ci stade ba ci xawukaay ba ci jaaxal jamaa lay tudd waaye lan ca namu ci sariya nag ndax xam ngeen ni borom xam-xam yi baat bu ñëw ci sunna rek dañ koy jàngat ci làkk lu muy tekki suñ paree doog a wax nag lan la lañ ca namm mooy hiya jamaatu lmuslimin wa hum salafu hadihi al umma wa hum alladina ala ma kaana alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabi mooy mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloom julit ñi te ñoom kat dara tënku leen lu dul tënku te la yonent bi tënku woon ak ay saxaabaam moo xam ci mbirum biir moo xam ci mbirum biti nañuy takkee jabar nañuy ngénte nañuy liggéey nañuy jëflante nañuy jaay nañuy jëndee ci yonent bi dañ koy jëlee alayhi salaatu wasalaam te it nag loolu la ñu suñu borom sant na suñu borom nee na waatasimu na ngeen way ci buuma gi yàlla gi kon nekk genn gi la ak fu waay mën a fàqee ak noo a sant noo mën a tëdd kuy sa bàyyi kër boo génnee ca nga war a mën a bokk bu dee remplir de yi nga xam ne moom la ñu waatasimu mooy leen bi xablillahi ci buum ak yàlla gi wala tafarraqu te bu leen teqalikoo bu leen juuyoo kooku mu ngi ci aada Imran aaya téeméer rek ñett suñu borom wala takunu kalladina tafarraqu bu leen mel ni gaa yi leen jiitoon nga xam dañoo teqalikoo waxtalafu ñu wuute min baadi ma jaahumul bay jaahumul bayinaat ginnaaw boo xam ne njub li dikkal na leen leen kat am na mbir yoo xam ne leer na ba noppi ni ci lii la yent bi nekkoon ñu wuute ak kenn ku ci nekk nag daal di fàq sa garab garab rek ñu kooba laay téye mu ni bu leen mel noonu kooku ñu suur al amran aaya téeméer ak juróom yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ni inna haadihi l milla sunu yoon yii di yoonu lislaam bi bu fi jógee sa tasdariqu ala salaatin wa sabiina dina teqalikoo juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett intaani wa sabuuna fi nnaar soixante douze yëpp yëpp soixante douze mbooloo yëpp yéen yàlla mu ni sawar la ñuy tax mbokk yéen tamit waxal ko de ñaar fukki xaaj ak ñett xeet bi dana ko teqalikoo ñi jàpp fële ñi jàpp fajarat ñi jàpp fajarat yéen yàlla bi nee na juróom-ñaar fukki ak ñaar yëpp dañuy tàbbi sawara benn kuréel rek ka cay tàbbi àjjana saxaaba yi laaj ko ban la mu ni liyal jamaa moom mooy mbooloo mi sax la ma taxoon loolu nag ni ko ñenn ñi foogee nee na mbooloo la mu ñuy joxe naan ña nga ne wala ñoom ñooy di wala ña nga dëkkate mbir du loolu de déedéet nit ki man naa ne fu mu mën ci nekk waaye remplir condition yi mooy aw ma ku may roy ku dul yonente bi alayhi salatu salaam képp ku nekk ci sama kanam ak lu ma la ormal ormal saa boo juyoo ak yonente bi ma juyoo ak yow benn waaye dama ko dégg muy def xam naa ku ñaaw la ko muus la biñ ko laajee lu tax nga wuuteeg diw te mu nekk magam lislaam dafa wax wax joo xam ni subhaanallah ndekee ma mën naa génne sax te génne ci tudul xakim rubba xikmatin xarajat min fami gayri xakim waa ji ñu ne ko lu tax nga juuyoog diw te diw moom magam lislaam la mu ni diw moomu daa juuyoog yeneen magi ma juuyoog moom xam nga wax dëgg maanaam magam lislaam mu waaye madame l'islam mu juuyoo la la la nga jiitu woon mag ñu njëkk ñu jiitu woon laa sakkan yow na juuyoo yow ndax yaa ko def ñu defaat la ko kon yonent bi alayhi salaam mu ne ñu nekk ca la ma nekkoon moom samay saxaaba noo sant baax na noo tudd baax na koo dëkk baax na kuy sa baay baax na l'essentiel na nga fexe ba condition yi nga xam ni moom la ñuy tënkoo ci mbir mi na nga ca tënku boo nee ca laa bokk boo nee ca bokk si même boo nee bokkuma ci ni keneen laa bokk waaye yaa ngay góorgóorlu te la nga ma rek yëgal ni te nga bokk ndax mbir yi ajuwut ci ay critères ay mandarga ay étiquette yi ñuy takk di ko xam ne ay nit déedéet waaye mbir mi mbirum jëfe santaane yàlla ak yeneen teem la moo tax Abdoulaye bin Mas'ud ba ñuy jaaxle ci mbirum mbooloo dafa wax ju am solo mu ne al jamaatu ma waafaqa al xaqa wa in kunta waxdak li ke mbooloo daal mooy li dëppoo dëgg lépp ne kenn nit ñi ci dëgg mbooloo nga yow nekkul dañ naan ah mbooloo bi kat am na tant de personnes am na tant de tant de nangam déedéet mu ni mbooloo mooy li dëppoo dëgg nañ bu fekkee yow kese yaa nekk ci dëkk ba te yaa ngi yaa nekk ci ci mbir ma kon yaa nekk ci dëgg bi loolu mooy li al imam Lalaka'i ni ngi koy likkale ci sarq usuli i'tiqaadi ahli sunnati wal jamaa téere la bu am solo ci wàllu pas-pas am na ahli sunnati wal jamaa nag léeg-léeg ñuy dégg baat bi léegi nit mën na ko dégg sax baat bi bañ ko te fekk da ngaa xamut nga xam ne al insaan adu li ma jahil nit noonu la ci li mu xamut dafay contre ba keroog mu koy xam ahli sunnati wal jamaa ci seen jëmmi bopp ñooy mbooloo ma nga xam ni ñooy jéem a topp la yonent bi nekkoon ak ay saxaabaam ak ñi ñëw ci seen ginnaaw muy taabi'uun ya ci wàllu pas-pas la yonent bi fasoon la ñuy fas ci jëflante tamit kadalik ci jaay ak jënd kadalik dañuy moytandiku lépp loo xam ne mooy bidaa ak lu ñu sopp ci bokku ci jàngale yonent bi alayhi salaam te it nag ñoom yonent bi daf leen defal garanti ba yow ak si duñ ci jóge لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين لا يضرهم من خلفهم خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك yéen yàlla bi nee du dañ moo lu àddina jaxasoo jaxasoo lu mbooloo yi bari bari bari lu nit yi sàggan sàggan suñu borom dana taxawal ay nit yoo xam ni yu dëgër kicc lañ tey rey yonente bi alayhi salaatu wasalaam gëm la mu gëmoon fas la mu fasoon ñoom ku leen xas itteelu leen ku leen tàgg yëgum loolu waaye dañoo dëgër ca la nekk ba keroog àddina yi tukki ñoom mbooloo lañ muy def ci kaw suuf yal na suñu borom ñoom li nga xam ne ay mbir la yu bokkul ci lislaam dañuy tegg yooya kat ñoom duñ ca dugg ahlu sunna wal jamaa nag mbokk yi buñ leen xamee danañ xam ni kat ay mbir mooy tax nag ñu xam ni ñii kat ñooy mbooloo mi ñii nekkul ko nit ñi foogee ni ma koy faral di waxee ñoom diw la ñoom diw la déedéet nit ki mën naa toog biir këram ja njàmbaram jur leen gëm fas lam fas di ko dund mën naa dinaa fexe ak ku ma yaakaar ci xam-xam ak lu ma ormal ormal yaa ma jàngal ak yaa jàngal ko ma jàngal ak yaay sëriñ it diw ak yooyu amul solo am na lu am solo fekk nga sa tànk ci fa yonent bi tegoon tànk moom juyoo moom incha allah dama juyoo ndax kat xam nga mbir mi kat cher la laa sakk ne faw am ñu ko jottalante kon ñi ko doon jottali képp koo xam ne yaa ngi jottali lan la jottali loo kat dëgg dëgg da ngay jottali danañ jot lu ca loolu jël ko waaye nag ku ca bëgg a dugal sa yëfu bopp nag dañ lay tegg daal di tegg keneen ndax mbir mi kenn ku ca nekk amoo ci sa yëfu bopp waaye mbiram suñu borom la te lépp leer na amul sa ci may ko dañuy mottali déedéet mbir mi na nañ ko ci dugal déedéet kon day wéne ni yéen sa salam xam xàmmeewu lu rafet ndax moom na lu rafet ba lépp lu na ko ci nee lenn lu leen mën a jëriñ jégal leen yàlla lu dul jigal naa leen ko doog a def bàyyiwuma lu leen waaye man leen a moytandikuloo lu dul moytandikuloo doog a dem suñu borom seede kon wa maa huwa a al ghaybi bi dalil mooy mbir mi dara la ci dénk lépp la leeral sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ahlu sunnati wal jamaa ci seen jëmmi bopp ñooy mbooloo la ñooy roy la yonent bi nekkoon ak ay saxaaba lu muy jaxasoo jaxasoo nag ñoom de bokk na ci seeni melokaan ñoom duñu naan ñi kenn duñu xas kenn danañ leeral dëgg suñu borom am nga nit juróo leen jëndoo leen moomoo leen loola war mooy la suñu borom ud'u ila sabili rabbik bil hikma wal maw'izati al hasana wootee si yoonu suñu borom bi ànd ak xereñ ak def ndànk ak wax nit ñi gis nga doomu aadama yi kenn ku ca nekk suñu borom daf ko jox am xel xel moom mooy wala nit ki lu mën a nekk bu déggee rek su ñu dee dana xam moom moom dana xam lu mu war a def ak lu mu war a def moo tax yàlla yàlla fay alimamul axbar yi euh, waxam ju am solo jëm doon wax awwalu ma yajibu ala al-mukallaf li njëkk war mukallaf mun nga saxu iman yi parce que nit kaw am lu mu gëm nit ki dëggu ba kenn muy nekk mukallaf xàmmee ràññee am lu muy topp moom am lu mu gëm waaye est ce que li nga gëm valable na wala déet imaamul axbari mu ne li nga war a njëkk a def mooy tax seexu imaan yi vérifier sa ngëm soo ko vérifier xool ndax lii la yonent bi façon wala déet alhamdulilah amaatee su fekkee li nga fas nekkul la yonent bi fasal taxawal nga vérifié ko doog a dem parce que kan mi ngi mel ni fondement ci bâtiment bâtiment bu bëgg a ñoqali jëm kaw ba mu dëgër maa ngi ragal ne bu demee ca kaw ci suuf la jëmaat kon sol na ci suuf doog a jàll loolu lay jekk ahlu sunnati wal jamaa nag mbokk yi ay nit lañ yoo xam ni ñoom bokk na ci seeni melokaan comme ni ko borom xam-xam yi di waxee ay mbir yoo xam ni ku dégg mën nga caa natt sa bopp ba ci njëkk mooy annahum ahlul wasat wal i'tidal bayna al ifrad wa tafrit wa bayna al ghuluw wal jafa sawaun fi bab al aqaid aw fi bab al muamalat aw fi bab al ahkam wa suluk فهم وسط بين فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الملل ahlu sunnati wal jamaa ñoom ay nit la ñu digg dóomu léegi nga gis ay nit yoo xam ne dañoo sàggan a sàggan a sàggan ba sàggante bi dafa jéggi dayo nga gis ñoo am dëgg la lam nekk lu baax la waaye dañ ca ëppal ëppal ba dugal ci ci bopp ahlu sunna jamaa ñoom bu njëkkee ci digg ba dañuy taxaw ñi borom ci tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam gis waa joo xam dafay ëppal ci tagg yonente bi ay wax yu ëpp bokk na ci li nga moom àllaaxira ak àddina bokk na ci li nga xam sa xam-xam bi mooy la ca lawxil mahfuus laa fekk loolu ëppal la loolu ëppal la ak luñ fonk fonk yonente bi loolu sér suñu borom am na koo xam ne ci dafa teel a yéen ah yonente bi simple personne foofu dara comme lépp mu jeex doyadal ko déedéet ñoom du ñu nangu ko doyadal waaye du ñu nangu ko ëppal dañuy taxaw ci diggante ba bu ko dalee ko ci ay baada di tamit ñoom kat ci lu ñuy du ñu ëppal ak doomu na ñëw gëm ni kat ci nit la waaye nag wàllu yàlla la dëgg dëgg wàllu yàlla ndax mi ngi tax ci sunna am nay may ku jub la ku baax la yàgg na ñoo xam ñu mu dimbali am na ñu mu jàngal am na ku ko doon jéem a tagg naan ko yow sax moom am nga nangam seen suñu borom ni ko utoo ba waaye loolu baaxut di leen jubbanti laa sakka ñoom dañuy nangu loolu dañ koy reconnaître waaye nag duñu nangu mukk benn waaye di wax jiw sàngam ñii mooy mu am mu am mu ñàkk mu ñàkk mooy wax mu taw mu wax du taw léer duñu nangu loolu parce que loolu sërëb yàlla subhanahu wa taala kon ñoom masala bu ñëw du nangu ko gàttal mbir ba xañ ko lu moomoon li ma leen dal ko di ci suul bu riba baax na ba noppi laa yastawi alxabiisu wattayib walaw ajaba kasratu alxabiis kon ñoom danañ nangu la baax waaye nag ñu ëppal ci nag dañ koy dañ kon ñoom bokk nañ ci digg doomuy xeet wi digg doomuy mbooloo yi ni lislaam nekkee diine bi digg doomu ci biir diine yi wàcc ci asamaan yëpp ñaareel mooy ixtisaaruhum fi talaqi ala alkitaab wa sunna ñoom kat dañoo am ay sources yu ñuy tuddee maanaam mbir mi kat su fekkente ne man damaa ñëw ma ne ci bari diw laay tuddee kii ni bàyyi diw laay tuddee kii ni bàyyi diw laay tuddee te bàyyi diw lam fas ak yoon wum tër bokku dëg kii yoon wum tër ak wam fas su yàggee jaxasoo day bëgg ñëw moo tax li ma leen wax sànq ni mbooloo yi fi woote woon islam yëpp maslaak dikki ak maslaay rajo télé rek fi nekk waaye gëmante wuñ de billahi alazim gëmante wuñ lii ma la wax lu gër la lu ma xam la du lu ma dégg de du lu ma bokk lu ma xam la mbooloo yi diine yi fi askanoo yëpp kenn ku seen kenn ci reconnaître lu morom mbiram bi ci rek la kenn ku ca nekk la nga te gëm ko mooy li ma nekk mooy dëgg ki ma topp mooy waajal ku nekkul ci li nekkul ci dëgg ku toppul waa ji dëjoo waajal loolu mooy li am ne comme mooy li am nag waaye ku ci nekk dëgg téeméer dëgg ak juróom-ñaar mën ko am kon su boobaa kat ñoom dañuy dellu te source ba da ngaa tibb di ma andil ndox mi bu naree xeeñ mbaa mu xonk mbaa mu nangam te wóor na ni source ba kat amul benn jafe-jafe damay waaxul sama tànk dem ba ca source ba te dem nit moo tax kon damay delluwaat ci sibbukaay mooy alquran ak sunna ñoom foofu mooy seen sibbukaay te gën a ñuy yem waaye nag suñ ko tibbee ba noppi nag ñu comprendre ko dañuy fekkee ndonga ya jàngoon ci école bu njëkk ba muy saxaaba ya ñoom nan lañ déggee mbir amul masala nag mooy gaaral ci lislaam lu dul ñoom wax nañ ci déggin bu set ci wér ndax radiallahu anhum wa radu anhu bokk na ci seen melokaan mooy laysa lahum imaamun muazzamun yaxuduuna kalaamahu kulla amuñ benn imaam rek bu ñuy màggal teg ko ci seen kanam diw la lu mu xaaral am nga dégg nag waa ju xayari waa ju doyadee doyade ba nga yërëm ko kat waaw jiw moom xalaatam la ñun jëru sax ñuy xalaat suñu xel yi mënoon naa dem su fekkoon loolu la saxaaba yi est ce que duñu yonente bi xalaatam la ñun jëru ñuy xalaat fekk déedéet mbir mi du loolu de amul benn waay bu ñuy teg ci bopp bi ni diw la bu dul diw du bu dul bu dul diw nii du du keneen nangu ñu waxi keneen ak ah, diw moomu lu mu wax même bu fekkoon waa ji dañu asamaana fee teg suuf soo ko féete kaw sax ñu ne wax na dëgg fekk mbir mi du loolu de yonente bi alayhi salaatu wa salaam keroog ba mu ne saxaaba ya kaay leen ñu kat def lii def na de saxaaba yi dañ ne ko lii wax ñu la wala sa xelam bopp lii kat du wax yi sama yëfi bopp la benn saxaaba ni ko man de am na stratégie bu ma jàpp ne bu ñu ko defoon mooy gën mu ne ko lan mu ne ko nañ xas benn gat benn ngaay dafa na yéen ñi fekkewoon tafsir xam ngeen ko ci suratul ahzab ñu def am ngaa yi ci dëkk bi te Salman moo jëlee alaaj te Salman jigéen ko dundal nabi sallallahu alayhi wa sallam kon amul benn nit boo xam ne lu mu wax noonu la lu mu contre baaxut lu mu bëgg loolaay li baax nga xam ni comme ak yonent bu yàlla ak jabal ak soo déedéet li am kay mooy ku ñu mën a topp nag dañu lay topp ci la yàlla waxoon la Abubakar ne woon topp leen na fii maa ngi topp yàlla ko yonenteen saa ma jàppee seet leen keneen ku ngeen topp ku dul man kon mbir mi ñoom xàlloolu la ngeen te ñoo ñooy mag ñu baax ña mooy ña nga xamante ni mag ñi di nekk it ñooñu ñoo leen fi jiitu woon laa sakka ne bu dee baax ñoom ñoo leen teg ci yoon bi kon ñoom boo gën ci seen melokaan mooy yonent bi alayhi salaam ni seen kanam ndax yàlla moo ko taxalal ak jub in huwa illa waxyun yuuxa wa ma yantiqu an il hawa du wax ci bànneexu ba kanam nga ne ah mu ne waaw waaw fu muy tibbee mu ne in huwa illa waxyun yuuxa jibril moo koy waxyu te la mu koy wax ñun bàyyi suñu borom te loolu lu jub la bokk na ci seen melokaan ñoom dañoo xër lool ci sunna waaye dañ koy topp ku ñuy bëgg te lañ lay bëgg ku ñuy bañ ci nit ka daalika te lañ lay bañee beneen bi ci def mooy ñoom kat di werante ci masalay diine loolu bokku ci seen i melokaan déedéet waaye saa bu werante na lay am rek ñu jàng ja fa in fi shay'in farudduhu ila Allah saa bu werante na lay am dañu ah ñun kat dañoo tere werante li ñu digal mooy nañ ko delloo ci téere yàlla bi ak sunna yonent bi su boobaa moom moo ñuy àtte bokk na ci seen i melokaan ñoom ñoom kat wax dëgg yàlla dañoo ormaal mag ña nag léeg-léeg <laughs> nga dégg bi ñoo ormaal mag man naka la nit di mën a amee xel jël ay mag tënk ko fii ñu nekkee jàpp ne ñi fi nekk rek ñooy ay mag di ànd ay mag lañ kenn weddiwu ko am nañu te baax loolu sunu kenn weddiwu ko waaye problème mooy lislam jéemu fii am na ay mag yeneen yu nekk feneen jamononte woon ak ñoom am na ay mag yu nekkoon fii ak yu nekk feneen te jiitu leen fi kon buñ ne mag ñi ci saxaaba yàlla ñu tàmbale di wàcce di jëm ci suuf ndax ñun ñii sax ñii nag ay mag lan nag ndax léegi tey bu ñu faatoo rek ñiy ñëw ci sët yi mag ñi la ñuy tuddee kon mbir mi mag nekk mag moom war naa mën a yomb mooy problème mooy man man soxla mooy mag mu baax te tax ci njub laa fekk nañ fi ñu baax te tax ci njub ñoo xam ne liñ doon digal ñeneen topp mooy jub ak jaamu yàlla ci seeni mbind ci seeni wax loo xam ni ay nit a ba tey yoo xam ne ñoom boo demoon ñu nekk li la ko du nekk lu ñu dégg waaye lu ñu fekkee la wala boog lu seeni bàyyi fekkee wala seeni maam kon yu mel noonu laa takkale nga ya dañ leen di limaale ca mag ñu baax ña mooy walladina jaau min baadin yaquluna rabbana ighfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman comme ñoom dañuy ormal mag ñooñu yëg ni ñoom kat ñooy seen bi yegg si sunna si ba mu yegg si suñuy loxo bokk na ci seen melokaan ñoom jamaukum bayna nusuus fi masalati lwaxida lépp masala bu ñëwati ana bàyyi lu mu ci wax wala déedéet lu mu amul solo li am solo mooy masala mu ñëw dañ naan waaw lu ci yéen ci wax dina boo demee ci Buxaari ka nangam a nga fa nga dem ci Muslim nangam a nga fa gis nga jamo awraadi adilla tegtal yi seen wax suñ ko ajalee ba mu teew su boobaa la ñuy gën a amul dégg-dégg pour xam masala bi lu seen ci wax dina gis mel masala nga dégg oustaz sàngam wax ci nangam oustaz te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nag la ñuy wax wér na te it la ñu wax yooyu du fekk wax su ma tey mënuñoo bokk mënuñoo ànd li ko waral mooy kee dafa coppatib xaaj kii coppatib xaaj kii dem kee dem waaye yonent bi ay waxam soo ko boolee ci ngay xam ni benn wax du ci wet di moroomam sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci seeni melokaan ñoom annahum qudwatu saalihin ay njub ay njiit lañ ci njub dañ leen di topp parce que kat ñoom bu dee xam-xam dañuy nangoo jàng ba ni xar waaye nag duñ ko def comme ni ko ñenn ñi defee jàng ba ni xar ba pare dugal ci sa koo seede leneen dañuy jàng ba ni xar waaye nag jàng dañ koy jëfe jaamu yàlla da ngeen di fekk ñu nekk ay jaamukati yàlla yu mag bu ñu xëyee nga bu téere sàcc liggéey comme ñëpp ngay dajale àddina ñuy dajale àddina comme yow waaye bu jaamu yàlla jotee nga xam ne liñ doon dajale safu leen waaye dañ leen koo sankoon rek kon yooyu melokaan mooy melokaan yi ñu soxla te moom la yent bi yore woon saxaaba ya dañoo am yërmande ci ku gëm yàlla nag ak looy mën a woote woo bëgg nañ la waaye dañuy fexe orienté la ba nga gën a baax waaye ku di yéefar bañ nañ la buñ la ko waxee ak buñ ko waxul bokk na ci seen melokaan mooy xel tuum al aqidati saxiha ñoom nag mbirum pas-pas daf la ñuy yitteel trop leneen nga dégg gars yi aqida aqida aqida rek bis bu nekk ñuy wax ci wàllu pas-pas kooku bu ñu ko tuddee lu ñuy wax yéen sa sallam jàngale bu mën a jàngale boobu def ci treize ans di koy woote kenn kan ma ci waxagul treize ans kenn waxagul ci treize ans te dara boo waxee tey bala a waxaat déwén yéen bi fukki ak ñett xooloo laa ilaha illa la ko fi nekk ak zamanul loolu ñu jàng ñëpp xam nañ kenn wuute wu ci laa sakka ni ku mën a leeralee noonu di jàngale ka ndongo yu amee jékki-jékki ni saxaaba yi fukki at ak ñuy jàngale mbir mi a leer la muy wane mooy bu dee ñun jir dund la ñuy am sondu bàyyi baa ñu faatu waaye mbir du leer mukk wala boog du mel na mu war a mel ci seen jamono jooju lu dul dañ ko jox suñu lépp kon ñoom dañuy orienté nit ñi di leen jàngal di leen jubbanti di leen wan ni kat lii mooy yoon wi mooy fas la yonente bi façon alayhi salatu wasalaam bokk na ci loolu saa boo gisee ku koy def xamal ni mbooloo mi jiw yi nekkul ci li nga nekk rek ay yéefar la mu jeex déedéet mbokk yi mbiram jiw yéefar laag jiw ku bon laag ku nangam la mbokk yi yàlla ko bàyyeeg ay jaamam mu àtteel leen boppam jiw a baax jiw baaxut jiw day dugg àjjana jiw dugg àjjana jiw lim nekk jiw yoon nekku ci xam nga la war jotti leen bëgg ci nga bàyyi nit ñi jànne ak amaan na mën naa li ngay gis ci bit wallahi am na ne ca biir bokk xafi naqi ku set wécc su xaaru daway bopp dagat dagat ay dagat yëri boo ko gisee ko fekk yàlla ak ay malaakaam ñu ngi koy bàkkoo sa kaw asamaan kon lii nanu aat leeral jàngale faram-fàcce bàyyeeg yàlla mu àtteeg ay jaamam ndax kenn nit ki mën naa def lu bon lu leng ba waa koñ bi yëpp yëg ko ku ne di ko móolu fekk am na lu baax loo xam ne yàlla rek moo ko xam te ëllëg àllaaxira la ko jërëmee kon jërëm àtte moom bu ci kenn dugg moom am sunu wal jamaa ñolu dégg seen bokk na ci seen melokaan mooy ñoom kat dañuy bëggante seen biir di jàppalante di dimbalante waaye yàlla rek rek mooy tax ñu di ko def ñoo bokk yoon ñoo bokk tariqa ñoo bokk sëriñ ñoo bokk nangam yooyu taxut nit ki di def waaye lii tax muy def mooy yàlla ndax su boobaa suñu fay ko bokk na ci seen melokaan bi aadamu nnaasi sabran fi aqwaalihim ñoom kat ñoo gën a mën a muñ nag parce que li ko bañ a woote boo doon wax ba da ngay continuer doo fayu mooy wax léegi benn waay saagal da ngay continuer muñ rek parce que yaay jottali loolu Abu Hurayra waxoon yéemu naa ci nit ñoo xam ne leen du xommat jëne safara ñuy jëne àjjana ñuy lànk tey dag yi saaga te sañu leen a bàyyi parce que yaa war a woote kon ar rahmatu bil xalq ahlu sunnati wal jamaa bokk ci azamu mumayisatihim mooy yaarifuuna al xaqa wa yarhamuuna al xalq dañuy xam dëgg ba noppi topp ci waaye dañuy yërëm bindee fii ci boppam nag su ko defee ñuy def ndànk di leen convaincre di leen waxtaan ak ñoom di leen xamal di leen xelal bañ leen a porté kenn ku ne am ngam xel boo ñibbee di nga xalaat xam lan mooy dëgg ak lu dul dëgg yàlla borom bi boole ci ñi nga xamante ni yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana yàlla suñu borom dimbali ñu bañ suñu pas-pas dëppoog borom mukk lu dul dañoo gërëm ci pas-pas ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين